bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp yéenekaay yi xibaar yu sakkan lanu xëy yeggeeñu ci samedi tey ji ñeenti fan weeru atum 2024 gën a yitteel bokk na ci dogal yi premier ministre Ousmane Sonko jël ngir jubbanti wàllu mbay mi ci Sénégal bëgg it campagne agricole bi ñu dëkkmal doon bu mucc ayib Les Échos ne loolaa waral mu dugal ci larme bi fas yéene it fay bor yi ñu amoon ci campagne ba lu mu gàtt-gàtt nee na fii xool 2023 2024 yéene kaay bi ne ci 4 ans maanaam ñeenti at ñetti téeméeri milliards ak fukk di 310 milliards nañ ko ci mbay mi te ñay yëngu ca wàllu mbay dëgg gisuñu ko dégguñu ko yëguñu ko fenn Vox Populi ne campagne ren gi nag nguurug Sénégal fas na ci yéene def téeméeri milliards ak ñaar fukk di 120 milliards bi ne budget record la ndax mësu fee am Sonko it journal bi ne rupture la woote ci mbay mi gannaaw ñetti téeméeri milliards ak fukk yu nu ci def te ko ndax feeñut fenn ca yi nag réew mi li nu leen yoral yépp lu mu gàtt-gàtt fii ak fukki fan weeru mai kon ay bés bi ñu ma li ko dalee juróom benn fan ba fukki fan ci weeru mai réew mi quotidien ne Ousmane Sonko diggée na ne dananu fay bépp bor bu nu yoreel opérateur yi Sud Quotidien ne Ousmane Sonko kay rupture la woote campagne agricole 2024 bi démb la ci doon waxtaan ak ngi mbir mi soxal jël sa dogal yu bari dogal yooya l'observateur ne bokk na ci digitalisation distribution intrant maanaam lépp lu ñu joxe ci wàllu jiw ci xarala yu bees yi lañu koy awale yéenekaay bi ne ñey sécuriser yooyee opération maanaam di aar yëf mooy takk takk der yi force de défense ak sécurité yi la ci Ousmane Sonko boole la mu ca jublu nag nee na mooy fexe ñu am mbay mu mucc ayib waaye it mbay mu méngoog jamono tribune it dëggal ne takk der yi force de défense et sécurité yi fi ne ñooy aar ak saytu lépp lu jëm ci séddaleeg jëwu gi loola waral l'indépendant ne Ousmane Sonko dakkal na mafia ba doon am ca mbay maak séddaleem jëwu ga l'évidence ne ko dileeru mbay mi kay lëfaat moom Ousmane Sonko premier ministre yéene ñaar fukk lañu fas yéene dugal ca moomale mbay ci atum ren ji ci wàllu jiwu journal bi ne day am traçabilité maanaam ku nu jox daanu xam kana ak lu tax ñu jox la loola la premier ministre sàkku démb ca ndajamam amaloon ca jam ñaajo doon ca mbay ma lii quotidien ne ndaje mooma ñaar fukki dogal yu am solo ñett ca génn direct news ne moom kay rupture dëgg la njiital gouvernement bi di doxal ci wàllu mbay mi acté na ko la koy màndargaal yéeni kaay bi ne mooy la ñu amel opérateur yi te mu ne dana ko fay ba mu jeex tàkk bokk na itam ci nanuy séddalee jiw ga ak financement campagne agricole bi ni nu ko fas yéene doxale loola la dikk ni ngi 24 heures mi ne meneen xeetu mbay mën naa ne ci Sénégal le réveil ne Ousmane Sonko mu bëgg a jëmale mbay mu Sénégal fësal ko démb jaaree ko ci bu mu tëgg ngir révolutionner secteur agricole booba le réveil tudd ci digitalisation maanaam awale lépp ci xarala yu bees waaye itam li ñu ci boole takk der yi ñuy saytu céddale gaak nañu yóbboo jiwu ya journal ba it dolli ci audit programme Intermac ak Sismar bi nga xam ni moo soxal njënd ak céddaleem jumtukaay di matériel agricole bi agriculture booba di mbay mi libération ne Ousmane Sonko kay fi ne transparence la ci imposé maanaam léppay leer nañ enquête moom la mu a gis mooy Ousmane Sonko ngay armé projet am campagne agricole ci nawet bi ñu dëkmal yéenekaay a la bu ñu jël Les ne la ko waral mooy ràññee nañu ne ay ponk yu baree bari ci PSE bi méngoo naag ñoom seeni objectif stratégique maanaam fi ñu bëgg a jëme réew meeg yoon yi ñu ci nar a jaar FMI yéenekaay bi ne sàkku nañu def grille tarifaire bu bees Ma'nam manam teug njëg yu ngir walu kurang bi waaye woyefal ko lol ngir njabot ñi new doole sus a di becc li dox ci diggante FMI e ngit yu bees yi bokku na ci engagement bu président Bassirou Diomaye Faye jël ni dana wéyal plan Sénégal émergent lola lepp ci dimbalal FMI e. FMI e mi le quotidien gis ne ma ngay taxaw bu baax baax état bu Sénégal ngir wéyal programme 2023 2026 yéene cabinet ngir boba projet Macky Sall bàyyi na fi 320 milliards Ma'nam ñetti téméri milliards ak ñaar fukk FMI ca boobale journal wax ne taux de croissance bi ñuy sentul Sénégal ci at meñu deugmal mooy toowu 7,1 pour cent maanaam téeméer boo jël juróom benn bu tombal benn benn càkkute fukk FMI bi ñu yéene kaa bi yeggee mooy ñu tëggaat grille tarifaire bu électricité maanaam njëgu courant bi nanu ko xoolaat l'info ne FMI xoolaat bu baax a baax lam doon seentul Sénégal ci wàllu croissance économique perspective yooyu yéene kaa bi ne FMI daf caa dellu ginnaaw ndax ñi ngi doon seentu réew mi taux de croissance 8,3 pour cent waaye fi mu FMI ngi ko jàpp ci 7,1 pour ñu des ak international minu vox populi xamal ne rafetlu na liggéeyu Amadou Ba ci atum 2023 AFM ne 2023 économie bu Sénégal dafa wone résilience maanaam mën a taxaw dëgër lu jafe-jafe yi metti metti ca boobale bi yéenekaay ñu ne jafe-jafe yu metti sax amoon na waaye teewut koom-koom gi moom dafa wéyoon di taxaw loola waral réew mi quotidien FMI ngay jox not yu baax Macky Sall ci wàllu croissance di koom-koom bi ni muy màggee waaye itam dette publique beeg inflation bi nunu def ba maîtriser ko feneen fu Sénégal am note yu baax it Vox Populi ne mooy classement mondial liberté de la presse bu Reporters sans frontières journal bi ne Sénégal def na jéego jógéen ci 104e place maanaam téeméer ak ba jëm ci 94e di juróom ñeen fukk ak ñeenteelu place ba waaye yéene kaay bi ne reporter sans frontière ba tey mi ngi wéy di amee njàqare ci kaarangeeg journaliste seen liggéey liggéeyu ministre des finances ba woon Mamadou Moustapha Ba direct news di ñu xamal booba jamono ne lu nu rafetlu la ci njeextalu mission FMI fii ci Sénégal xeexum ger ci Sénégal nag yéene kaay bi ne of nag la mu bëgg mooy prévention ba nuppi soog a ak yeneen buñ ca noppee nag soog teg daan ya ku jàdd yoon ñu teg ko sa kaw Dakar Times su waxtu woowa muy wax ci rapport yi ne gannaaw ba nu fësalee ger gi ci secteur foncier bi maanaam mbiram jënd ak njaayum suuf li war mooy fi mu ne xool administration bi ndax journal bi ne lu ji njaaka administration bay njaak ca yoo yële luubal luubal yi cour des comptes gis ba fësal ko ci rapport am libération ci la xëyati xëy ak ñun ci ANAT di agence nationale de l'aménagement du territoire yéeni kaay ba ne agent comptable ba woon fanweeri chëg la jagleel boppam cour des comptes na delloo lépp taxawal libération ba mu noppee ca loola wax na ci barsaak barsaak gi tàmbaliwaat yéenekaay bi ne tàmbaliwaatut ndànk sax te bakkan yu baree bari ñi ngi doon journal bi yëgal ñu ne ab gaal gu réeroon ay ayu bés ci géej gi mujjee naa teer ca ndar indaale ñaari néew ca bés booba it beneen gaal bu yeboon ay migrant ña ngi ko wàlloo ca gànjol ñaar téeméeri nit ak benn marine nationale wàllu na leen duwaan nag yéenekaay bi ne karnab gaal bu yeboon téeméeri nit ak fukk ak juróom ca benn ya ay jigéen lañu juróom benn xale yi journal ba ne président Bassirou Diomaye Faye moom ma nga woon Medina Gounass démb réew mi quotidien ak yeneen yéenekaay nañu ca daaka ba la demoon yéenekaay booba gis ca ne Bassirou Diomaye Faye a dëgëral Sénégal laas ne ca daaka bu Medina Gounass gam demoon démb wax na ne ñaanu kilifa diine yee ko waral waral mu sàkkuwaat ca ñoom ñaan ngir Sénégal gu suqaliku Sénégal gu naat waaye itam Sénégal gu juboo am jàmm tribune ne gannaaw ñaan ak ñaan lu yooye njiitu réew mi yi digg na ne lépp luy dëgëral diine aada ak cosaan ci réew mi ci lay xëy di ca gont journal bi ne ma nga yëkkati yooye kàddu ca daaka gu Médina Gounass gam demoon démb tey jii nag l'observateur xëy ci moom président Bassirou Diomaye Faye Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñëw ci seenuk colin ñett xeetu colin yoo xam ne yéenekaay bi gis na ne ñu ngi koy solu te bu ca ne am lu muy tekki bu ca ne it am fun ko war a yóbbu stade moom booba jamono yóbbu nu bitim réew wax ci wàllu ak sunu gaynde yi di kuyaate bamba ñaxate kamara ak jaw ñoom ñépp yéenekaay bi ne buñ mayul ci maanaam seeni club day wàcc Thiès ak Eumeu Sène ku ciy wàccee moromam dimanche sunu lamb booba lépp laaj la samp laajit ndax revanche lay doon am confirmation tontu li dimanche la dimanche booba it sunu lamb ne Balla Gaye 2 ak Tapha ñi war a bëre ñaar fukki fan ak benn weeru juillet ca la ñuy def jàkkaarloo bu tàng jër ca arène nationale foofa la jeexale ñun ñaanal leen kenn dal jàmm dig daje ëllëg incha